Maguette Ndiaye maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi alors ngay njiitu nag kuréel gi ëmb ñi nga xamante ne nag ñu amee doomu jàngoro ji di drépanocytose euh, ñuy wàjjal nag bés gi ñu ko jagleel suba nan nga jàngatee euh, li nga xamante ne mooy feebar bi de. waaw waaw ni ñu koy jàngatee moom mooy feebar la boo xam ni boo ko yoree rek da ngay feebar la boo xam ne ci niñ koy niñ koy niñ koy njëkk a tegtalee moom mooy dañ naan feebaru métit la feebaru deret la feebaru anémie la muy feebar boo xam ni at mu jot euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de juin àdduna wër nga këpp daf koy mm, saxawal di ko manifester ci ci réew mi fépp ku nekk foo ci nekk ci àdduna bi te am ay malade rek dañ koy taxawal ba tax ñun ñu koy jëmmal ren nag ñu koy defee fule hôpital dalal jàmm géejawaay donc feebar bi muy feebar bu metti boo xam ne boo ko yoree rek jafe-jafe yi dafay bari ni muy ni muy nekkee ci yow la ay métit la métit yu tar yoo xam ne yenn saay malade bu nekk bu na la ko expliquer ci ni koy euh, sentiré donc ci tënk euh, loolu la ñuy wax mala feebar moom la ñu mun a tënkee drépanocytose ñu koy wooyee malade boo xam ni maladie boo xam ni ah mun nañ ne ci olof amul bàjjen ci ci ci réew mi. nan lay dikkalee nag nit ki nga xamante ni euh, moo amee doomu jàngoro ji. waaw boo ko yoree moom lu ci ëpp euh, dangay gis nit ki lu ci ëpp day euh, day xooy xam naa ne xale yi léegi xamuñu xooy. Hmm. ndax olof la bu leer boo xam ne mooy wane ne nit ki foo ko fekk day mel ni ku paal bët yi sóon mu mel ni bët yi day mboq mel ni ku amee pays day nekk nit koo xam ni souvent dafay dafay deret dañ ngay wax day nekk koo xam ne tamit. Euh, du am yax noonu ndax li faral di am métit dafay bari du nekk nit ku rëy nit ku tuuti lay doon mu nekk feebar boo xam ne tamit euh, boo ko amee lu ci ëpp ëpp euh, doo nekk koo xam ni da ngay mën a di def yenn yi ndax ñi ngay tëdd hôpital dafay faral di bari li ngay dem hospital li ngay dem tamit consultation dafay faral di bari waaye aussi li ngay tëddi dafay faral di di di bari moo tax vraiment muy maladie bo xam ne daal euh, maladie médite la mhm. waaw. lan moo nekk ci origine euh, feebar bi lii lan moo ko indi. waaw ci ci ci niñ koy tënkee de mooy jàngalekat yi nee nañ feebar la feebaru ndono la. feebar boo xam da nga koy jëlee ci waajur yi ñaari waajur yi wala kenn ci waajur yi euh, ñaari waajur yi moom mooy tax ñu ne yow am nga forme yi nga xam ni moo forme yu métti yi ñu koy woowee forme SS wala forme SC wala yeneen forme yi. kenn ci wéyjur yi moo waral euh, ñu naan daal euh, ñu koy tënkee noonu ni feebaru ndono la ah, feebar la boo xam ne lu ci ëpp buy feeñ euh, day fekk rek nga nga nga am ko kenn ci say wéyjur am ko wala say wéyjur waaw du feebar boo xam ne aussi dañ koy wàlle feebaru ndono la loolu daal lañu faral di tekki ci borom xam-xam yi di ko tekkee noonu. alors ana nan la ñuy war a def rek ngi mën a prévenir euh, doomu jàngoro jooju li pour pour prévenir ko daal ci ci li ñuy wax moom mooy dañu nañuy fay euh, fexe bay saytu suñu bopp balaa ñuy dugg ci néegu sëy waaw di def test bi ndax am na test moom mooy tax ñu xam am nga wala amoo euh, di ko def balaa ñuy dugg suñu néegu sëy nga moo gën ba ci biir doom ju feebar. Euh, nekk ci ay jafe-jafe dugg ci alors tamit dañuy faral di di wax nit ñi ñuy bàyyi xel di dem ko docteur it bu ñu gisee yenn yenn yenn signes yi ndax yenn saa yi nga gis xale euh, loxo yi euh, tenq yi nga xam ni moom mooy catu yi ak conco yi nga gis muy sadd di neewi yenn saa ba caag muy dem di ñëw ndax buy feeñ ci xale lu ci ëpp tax dafa guñu test bi yooyu lay wane da ngay gis du ci xaw a jour Euh, coon ci di di neewi dem ak a ñëw loxo yi ci tamit di xaw a neewi ñu naan dafa daanoo yooyu ba tax na nee nañ toujours boo gisee loolu ci nga am doom gis loolu yóbbu ko hôpital fekkee nag amago doom it dañ naan la boo dee ndaw jëmal nga defi test bi balaa ngaa dugg ci néegu sëy muy góor comme muy jigéen ndax day tax ëllëg yéen ñaar euh, bu doom juddoo du fekk doomu jàngoro boobu ci yéen ba tax ngeen koy war mun a wàll muy am forme bu alors ana yan mooy euh, type euh, drépanocytose yi nga xamante ne ñoo jot a am. waaw fii de Sénégal dañ naan AS am ak ak alors AS bi mooy bi xam da koy jëlee ci kenn ci ñaari waajur moom la wax bu métti bi moom ak SC ñoom ñaar yëpp ci ñaari wuy day fekk say ñaari waajur am ko alors muy ay ñaari forme yoo xam ni. ku euh, mu daal lu ci ëpp sa sa sa sa yenn hôpital dafay bari sa tëdd dafay bari euh, daanaka daal dañ lay wooyee lañuy ñuy wax xiibar moom lañ lay tënkee moom koy tekkee pour wane ne yow moom feebar bi euh, li muy jug ci yow duy bari ba daf lay xañ wala di la teree tamit di def li nga bëgg yëpp comme ni ko nit ñi di defee. ana lan mooy traitement gi ci war. waaw traitement bi de moom amaguñu solution. xanaa kay di dem hôpital saa yu la daanee waaye aussi di la wax ngay bàyyi xel ci sa bopp ci sa bopp ndax li ñu naan xobbutu balaa ngaa lakkale yow sa bopp boo xasee am feebar bi comme ñun ñi nekk ay magum jëmm ak xale yi nga xam dañ leen di faral di fekk Albert waaye eh, bu ñuy def ak ñoom éducation thérapeutique dañuy wax yaay yi ñuy bàyyi xel ci ñoom eh, bu ñu jàmbatee dara ñu ñu teel cee ndax eh, yenn saay nga jàmbat mu jur ay yeneen jafe-jafe ay complication waaye aussi ngay bàyyi xel ci say bët nu mu mel euh, ci ci tamit boo tuur ndox couleur bi nu muy mel mais aussi lépp lu nga xam ni rek da koy yëngal wala day day tax mu daaneel la ñu ciy bàyyi xel muy tàngaay bi fii wala cuuraay wala wala wala wala saxaar su bari si wala toxum cigarette bi wala heure bii ni ñu nekkee ci marché yi muy fatt euh, euh, oxygène bi ngelaw li du circuler yooyu yëpp muy ay bëgg yoo xam moom daal la ñuy faral di di di di wax daal euh, ku ko ci mën a di moytu ak yenn jafe-jafe yi ku koy gis ci sa doom euh, nga teela jub euh, ba tax daal yooyu la ñuy faral di jox tegtal pour que muy loo xam suñ ci bàyyi xel xëy na mën a dund ak feebar bi wala balaa mu ñuy daane ñu mën a jël matuwaay ci wàll. alors feebar bi lii lan la mën a jur. waaw li mu mën a jur moom bari na dañ koy tënk ci fànn bu ne. waaye fànn yi ëpp solo moom mooy li ñu maladie di di wax te muy lu ñuy dund muy wàllu wàllu koom am nga am am boo yoree feebar bi yor xaalis wala yor koom dafay jafe ci yow ndax daanaka bañ ko fi xaymaa dañ ne woon euh, daanaka benn malade bu nekk euh, mu ngi doon nekk euh, téeméeri judde la daan nekk ci ci doomu aadama muy muy muy million am nga ne tey da ngay gis yenn saay benn benn kër mu am ñaar ba ñetti malade loolu yëpp boo ko bëggee boole di ko investir ci xale yi ci kenn ku ci nekk ba pare bëgg di dund facture yooyu dafay jafe ba tax na muy feebar boo xam ni dafa dafa ci poos waaye aussi euh, dafa di feebar boo xam ni tamit dafa métti ci yax dafa métti ci yaram ndax koo xam ni tey euh, day mel ni dañuy dëggu sa yax bu lay daaneel day nekk aussi feebar boo xam ne ci biir société bi dañ lay duñ la comprendre ndax société bële comprendre wul dara par sooy am ay jafe-jafe yenn saa yi ci biir néegu sëy ndax wu jéyeeg euh, am doom yeeg yooyu doo mun a def tey booy sëy euh, la la war ci biir néegu sëy ba euh, ci biir kër ga ci biir famille bi ndax suñu Sénégal gis nga ñu tënkee famille ci biir kër goro yi yooyu yëpp mu ay jafe-jafe yoo xam ni yenn drépanocytaires yi am forme bu métti bi dañ koy dund ci seen biir Euh, famille waaye aussi muy feebar boo xam ni day tënk xale bi wala nit ki ba du mën a yenn saa yi di def lépp lu mu bëgg a def surtout dañ lay dafa bari ay tere ndax doo def sport bi wala doo def concours bi wala doo def formation bi loolu li ci ëpp feebar bi ni muy def ci yow tax na yu bari dañ koy xaw a tere wala dañ koy wàññiloo nit ki ba boo ko yoree rek dafay mel ni da xaw a alors beddi boobu société bi yenn saay di la beddi ndax ñàkk la comprendre te nit ñi du ko dugg dund ci seeni euh, ci biir sëy yi wala ci biir kër yi wala ci biir société yi wala ci biir oto yi sax euh, moo tax association toujours di def ay éducation thérapeutique ay waxtaan ay xeeti waxtaan ay sensibilisation pour que nit ñi di gën a bàyyi xel ci feebar bi ndax ba léegi Sénégal xamaguñu euh, feebar bi ñuy wax drépanocytose correctement. ana lan la ci euh, rek euh, kuréel gi jot a gën a def fësal ko ci lu ni mel. waaw ñun li ñuy def fi ne nii mooy daanaka ñun xam nga ak kuréel gi bi mu amee léegi am na fukki ñaar fukki at ak ci ren ñun ñun ñun nañu ba région boo dem am nañ fa am nañ fa am nañ fa loo xam ci ñun la dépendre muy def liggéey boo xam ne ci biir hôpital yeeg ci biir kër Euh, maladie di def muy neex sensibilisation ak éducation thérapeutique waaye aussi ñun ñuy association nationale boo xam daanaka at mu jot dinañ dépister te kenn du fay daanaka euh, euh, un neuf cent mille neuf cent neuf cent élèves wala un million yoo xam ni du ñu fay ndax dañoo am programme boo xam ci biir école yi la nekk école bu nekk dañ fay faral di dépister te xale bi du fay waaye ci biir dépistage boobu tamit dañ ci ànd ak waxtaan bi ñuy wax sensibilisation waaye sensibilisation boobu tamit tax na fépp fu occasion am rek ñu mun ko def di ko jëmmal ci bis yu mel ni journée mondiale bi waaye di ko jëmmalit ci plateau yu mel ni seen plateau bi tey ngeen ñu ngeen ñu ngeen ñu jox waaye aussi fexe nañu ba di xeex di xeex bay am yenn saay ñu ñuy gunge ay partenaires yoo xam ni bitim réew lañuy ñuy jóge di ñu gunge ci xeex bi bay fi nii ñu ngi gën a di renforcer yenn jàngalekat yi nga xam ni ñoom ñooy faral di jàngale feebar ci matière bi feebar boobu ñuy wax drépanocytose ñu leen di gën a kattanal gën a dooleel gën leen a jox tamit ay ay ay ay ay outils ay documents yoo xam ne dañ gën a xam ni feebar bi waaye tamit ñu ngi fexe di dem ci gox yeeg goxaan yi ba tax na tey fi mu ne nii at mu jot daanaka dinañ def euh, di juróomi région ci ci ci ci ñaar ci ci quatorze régions yi pour que nit ñi gën a xam ne feebar bi euh, du feebaru euh, wàlle feebaru ndono la et que bi dafa am loo xam ne dañ ko ko war a jàppee ci biir société bi ak ci biir moom fa muy liggéey ba tax loolu day moytu day tax ñu moytu bedd bi ñuy faral di dund yenn saay ci yenn yi. Maguette Ndiaye jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu kuréel gi ëmb ñi nga xam xamante ne ñoo amee doomu jàngoro ji di drépanocytose ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaye di leen jaajëfal tey woo malade yëpp ñu ñëw àllarba ca dara jàmm ci conférence bu mag boo xam ne professeur Fatou Samba Ndiaye da koy def ci paj mu bees moo xam ne gis nañ ko pour que ñuy dund ak feebar bi seen seeni hospitalisation yi gën a wàññeeku du koy wooyee grève